Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf wàññite njëgu dund gi moom la yéenekaay yépp daanaka xëyee ni ki tey ji réew mi quotidien dañu wax ni état de wàññi na li nga xamante ne mooy njëg yi bokk na ci ay produits yu mu taamu yéenekaay bi dañu xamal ni lii di mburu bi wàññeeku na ñetti dërëm litre dëwlin bi lu toll ci ñaar fukk kilo ceeb bi ñeenti dërëm wàññeeku na ca kilo suukar bi tamit lu toll ci fukki dërëm lañ ci roppi li moo tax Sud Quotidien jàpp jàpp ni état ci boppam jëfee na li mu yëgle woon ndax démb régime Bassirou Diomaye fay bi daan nay xam ne ni kon wàññi na lu bëri ci ay njëkk laataamu ci yegg yéene kay groupe Sud Communication bi di xam ne ni état jot naa dakkal lu toll ci juróom-ñett fukki milliards ak ñeent ci ay taxes waaye nag bi yóbboo ñu tey ndax suñu naataangooy ñu ngi ñuy xamal ni yi lay dogal nag ay bis yu ñu dëgmal lañ ko war a tàmbalee jëfee gannaaw ndaje bu ñu war a sekk conseil national de la consommation loolu duppee Serigne Bundu ak Koromak daal dinañ koy jël bëri na lool li nga xamante ne moo ci tegul ci yoon ndax li ñu ñàkk daje ak conseil national de la consommation yéenekaay bi yokk ci ni direction du commerce intérieur moom ci wàllu boppam boolew ñu ko ci le quotidien yéenekaay di ko ci feelu muy xam ne ni dogal yi nga xamante ne kon état ci boppam jël na ko ngir wàññi njëg yi bëri na lees waxul yenekaay ma jàmbal Diagne bi jox kàddu Momar Ndaw mi jiite ASCOSEN moom mi xam ne ni état fa mu war a tàmbalee la jéggi daa di tàbbi feneen état ci boppam li mu def Vox Populi dafa jàpp ni imposition la maanaam mu neex wala mu naqari njëg yi moom dañu koy wàññee yéenekaay bi di xam ne ni kon lii mënees nañ ko méngale ni ab digle muy promesse électorale bi nga xamante ne dañu ko jëfee 24 heures mel ni ku koy dëggal muy xam ne ni wàññi njëg yi nga xamante ne mooy li njëkk ci taxawaay bi nga xamante ne état am na ko mën nañu jàpp ni mooy ngëneel bu njëkk bi nga xamante ne jagleel nañ ko askan wi askan wi ci boppam état dafa mel ni ku koy neexal l'observateur moo ni jàngatee ci dogal bi nga xamante jël nañ ko ngir wàññi yenn njëg yi yéenekaay bi di xam ne ni ñii di acteurs yi seen wàllu bopp am na li nga xamante ne jot nañ ko nangu teg ko ci suuf waaye boulanger yi ak ñeneen mu mel ni seen taxawaay ba tey leeragul ñu gis ni dara leeragul ñu ngi ci Walf Quotidien ndax nee ñu consommateurs si ba léegi jàpp nañ ni liñ doon xaar ci wàññite gi daal ba léegi gisaguñ ko looloo tax sax Les ko jàpp ni mbetteel moo am ne ki démb gannaaw ba ñu yégle ay weer ni dañuy wàññi njëgu dund gi gi ni turu wàññi kese la rax ci dolli am na xëy na li mu mën a jur ci wàllub subvention bi ba tax jëwriñ ji di Cheikh Djiba gis ni subvention ci boppam lu muy def ci état moom la wopp bi di cancer di def ci doomu aadama gi beneen xibaar bi état fësal ci biir les ko muy mbuur mbuurkat mi nga xamante ne dañu ko nangoo ci ñi nekkoon ci régime bi wees li am ba am daal bis bi la jour jàpp na ni njëgu suukar diwlin ak ceeb bi nga xamante ne wàññi nañ ko état dafa mel ni wàññi tension bi jamono ji ci réew mi yokk ci ni ngir gunge bi lay dogal daal nguur gi dafa fas yéene dekkilaat li nga xamante ne mooy ay sa ngir fexe ba jaaykat yi mën a tënku ci yooyu la njëg ñu wàññi njëg yi ñu wàññi yeggul benn yoon ci dem bi ak dikk bi réew mi quotidien dikkaat ci njëgu paas yi yokk ci jamonoy wàccaay tabaski gi ñu toll muy yokkute bu jéggi dayoo aji tukki di ko mettitlu leneen li metti mu ngi ci biir enquête quotidien ndax yéenekaay bi mu ngi ñuy fësal xeex bi am ñeel manganèse bi ci Sénégal mujj gi suñu naataango yi indien yi daal di nañuy jóge Sénégal yéenekaay bi dikkat sax ci li waral plainte bi nga xamante ne eh, actionnaire yu Sopra ñoo ko daal di déposé looloo tax dik teg na loxo sax lu toll ci ñaari ingénieur téeméer ak ñeent fukki conteneur tamit daanaka enquêteurs yi daal di nañ koy saisir libération daal di delluwaat tey ca Petrosen di yëgle ni société bi ci boppam leb na lu tollu ci juróom téeméer ak juróom fukk ak ñeent lu toftal ni ay million de dollars nga xamante ne ñetti opérateur yu yëngatu ci wàllub gaz bi ñoo ko ko jox bor bi nga xamante ne mu ngi ko jëlee ci website BP ak Cosmos te li liñ ko war a fayee nag ci li tukkee ci pétrole ak gaz bi nga xamante ne Sénégal war na ko tàmbalee jaay fa lañ koy jëlee réew mi people jël tey kii di Satu Bambi di ab artiste bi wane lool am waaye tamit di wane ni yamul rek ci li nga xamante ne mooy musique bi ndax yeneen i domaine fu nekk lay dugal loxoom ñu dugg ci stade quotidien muy wax ci saison bu mucc ayib bi nga xamante ne Lamine Camara def na ko ba tax ñu daal di koy tabb meilleur maanaam ndaw